الحمد لله إن أعتى وإن حرما حمدا يليق به بطئا ومختتما كم نعمة حملت في طيها نقما ونقمة حملت في طيها نعما نرضى بما حكم المولى ونقبله فإنما العدل فيما كان قد حكما وما الحياة لأهلها سوى قسم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 bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa ñu del si waat ak ca kartanal yàlla fas ni leeralanteeg yéen lu aju ci bis yu mag yi ñu nekk muy bis yu bari ngëneel bis yu yaakaaru bis yu yëkkatiku bis yoo xam ne bénéfice la ñeel jullit bi bis la woo xam ne bu ñëwee ren déwén rek lañ koy mën a dabaatal te ñun ñu am change mu fekk ñu fi ren kon aucune chance la ci ñun bu baax ñu góor góorlu ci ndax xamuñu ëllëg déwén waxtu wii fu ñuy fekk ak num ñuy fekke ndax daaw ci waxtu wii am na ci ñoo xam ne fekkee woon nañ ko ren mu ngi leen fekk ci biir suuf du seen coobare nag wala du seen njàccaar moo tax yàlla dugal leen ci biir suuf ñun ñu fi bàyyi ñuy dundandi nekkul ne suñu njàmbaar ak suñu ngóoraa tax yàlla bàyyi ñu fi waaye lépp a ngi dawee ci cooba rek borom bi comme yàlla may nañu chance bu rëy ñu mën a dundandi ba fekkee njëriñ ak yiw wu toll nii yoon lañu góor góorlu ci bu baax a baax a baax muy fukki fan yi nga xamante ne fa tabaarakallaahu li ca jekk lenn rek la mooy jaamu yàlla mooy kañ yàlla mooy bàkk yàlla mooy sant yàlla loo rek a ci jekk leneen loo ci def lu dul li yàq nga ko kon su ko defee suñu waxtaan wee passé waxoon nañ la njëriñ li nga xam ne aju na ci tabaski bi ak li nga xamante ne moom lañ ci sopp ak organiser ba ak nuñ ko bëggee ak doxalin waag yépp leeraloon nañ la ko ca waaye ba tey e, fàttali du doy ba tey yiw du doy ba tey it e, soññ du doy kon su ko defee moo tax ñu bëgg ñëwaat ak yow tuuti rek ci tënk bëgg gën a laayee biir ak yow ci lii nga xamante ne jubl nañ ci muy jaamu yàlla bu mag jaamu yàlla la boo xamante ne nag fa tabaarakallaahu ñu bëree bëree bëri réeri nañu mbir yi mbir ya mooy lan amaa nañu ci rey seen bopp ba bàyyi farata ndax waxtu julli juróom yii muy fajar tisbaar takkusaan timis gaye farata la moom du la wàcc li tax mi lay wàcc mooy nga tàggook sa xel wala boog sa ruu tàggoog sa jëmm lii rek tax mu wàcc la mais fekk yaa ngee sa xel boo feebaree ba mënoo jug fi nga tëdd it waxtu julli bi du la wàcc mais lii nii muy jaamu yàlla bi ñu jublu si muy tabaski moom boo mënul wàcc na la kon nag jaamu yàlla bi nga xamante ne sunna la bu mu la yàqal sa yi li la koy xamal dana dem ba ci bis ba bisu julli gi am na ci koo xam ne bu sañsewul dem ci jumaa ja foog na ne moom ratte na lu rëy ci dundam mais xoolal at mi at mi ñaata weer la fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar jumaa nekk ci ci ci sa taatu kër tout près rek ak sa kër waxtu julli juróom yi mënoo ko fa joxe ji te amuloo benn ngant bu la téye nag lii di julli bii muy tëbaski wala korite tax ngay rey sa bopp ngir dem julli ji te loolu ngay defe ji sunna la te waxtu julli juróom yi farata la mais ngay dabal sunna ba bàyyi farata ñu bëree bëri bëri ci ñun ñu ngi dundee noonu te lu rafetul jaaduwul ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax bis la boo xamante ne bisu jaamu yàlla la bi bisu topp yàlla la bi su sant yàlla la ndax sant feeg jaam bee ngi sax di ko def yàlla du dañ mukk ci di la doolil xéewal jaamu yàlla bi heure bu demee ba yëg ne moom mii kat mi ngi am wàññeeku ci dundam na xoolaat ndax mi ngi sant yàlla te bala ngaa kaas xéewal bala ngaa kaas euh, xéewal yi nga ñàkk santal ci xéewal yi nga am ba pare nit ki heure bu ne bala ngaa jàmbatu ci yi nga ñàkk santal ci yi nga am sant yooyee nga am nag mooy tax yi nga ñàkk mën a ñëw waaye su fekkente ne li nga am da xarab santoo ko kon nag xéewal gi des pour mu ñëw day jëfe kon su ko defee iid daal mbokk yi muy jullik tabaski euh, ni ko waxkat ba waxee rek ne laysa al iidu liman labisal jadid innama al iidu liman xaafa bil waid tabaski daal dafa doon bis boo xam ne nekkul ne sañse lañ ci soxla wala xeeñ lu neex wala ndawal yu bëri yu saf mis yu tabaarakallaahu lekk ba sa biir bi attanoo ko nee na nekkul ne loolu mooy iid déedéet iid dëgg dëgg dëgg mooy bis la boo xam ne da lay fàttali rendez bi nga war a dajeeg sa borom rendez bi nga war a dajeeg sa borom bis la boo xam ne loolu la la war a fàttali mais duwul bis boo xam ne dañuy topp ngumbaay yi rek topp naan yu sedd yi rek topp yàpp yu duuf yi rek déedéet loolu gaa ci la bokk nag ci yenn borom sant yu garaw yi ñu mal ni Camara ak ñu mal ni Touré ñu mel ni ñas ak ñeneen ñu caaju waaye su ko defee nag bis la boo xam ne da nga cee war a jàngataat sa bopp war see jàngataat rendez-vous bi nga am ak sa borom lan nga war a teg ci sa kanamu borom ndax sa borom dana la nangul li nga jëf muy li yiw ndax say rëcc rëcc yàlla dana la ko jéggal waaw kay yooyu moom mat a xelaat moo jar a bàyyi xel mais duwul bis la boo xam ne dañ ciy puukariwu déedéet bëggee wuñ ko noonu bisu sant yàlla la. benn boroom xam-xam day wax ma ni laysa al iidu liman tabaqara bil uud innama al iidu liman taaba wala yaud iid bi doon euh, bis boo xam ne dangay ngay gëttu mooy xeeñoo lu neex mooy taaroo lu rafet sol lu rafet. ne na ayit bi doonu loolu ayit bi dëgg dëgg dëgg daal doon na bis boo xam ne danga nga war a doon kuy sippeeku ci bàkkaar mooy buddeeku ci mooy yàlla lu des ci sa dund nga ne man mii kat def naa lii dootuma ci dellu bis la boo xam ne loolu la la war a mën a fàttali mais doonul bis boo xamante ne dañ ciy mooy yàlla ndax bis la boo xamante ne ñu ci ëpp ci jeunes yi nuñ ko mën a waxee bis la boo xam ne dañ ci programme ay mbir bis la boo xam ne dañ ciy programme ay mbir yenn milliers yi tux sija dajeeg seen i seen i yi su ko defee bis la boo xam ne laajut loolu mais bis la boo xam ne dafa laaj sellal dafa laaj fàttaliku sa borom dafa laaj jéggalu yàlla dafa laaj sant yàlla ngir lan ngir xéewal ak teraanga jula la yàlla subhanahu wa taala defal ndax xéewal gën a bakkan ni yow yàlla ne la tëral jagleel naa la ko teralee la ko rayal nga ray mu ne la fullil der wi nga fulli mu ne la dugalal ci cin caaf nga saaf bam ñor mu ne la tegal nga lekk lew na la nga santee ma ko teraanga ju tool nii ñun jullit ñi am ko ngella buñ ko yàq ci ay peccek ay ngumbaay ay yu kenn xamut kon su ko defee yooyu aucune chance la boo xam ne yàlla defal nañu ko buñ nangu mu rëccuñu dafa am jour boo xam ne nag bu la yàlla nattoo ba nga mooy ci yàlla lu des ci sa dund dootoo jàkk am na jour boo xam ne bu yàlla nattoo ba nga góorgóorlu ci topp ci yàlla lu des ci sa dund dootoo yàqu kon nag bis la boo xam ne jagee ci yomb na waa yàqoo ci yomb na nañ góorgóorlu ba jagee ci waaye bañ a sàgg nit ba yàqoo ci laysa al iidu liman tazayyana bi zinati dunya innama al iidu liman tazawwada bi zadi bi zadi taqwa nee na iid bi daal mooy bisu tabaski bis la boo xam ne duwul ne dañ koy taaru ba tey ci yére yu rafet ci sañse gi ca aju mu ne waaye bis la boo xam ne bisu dañ koy préparé ngir lan ngir ay sërëcë yu ñuy war a yëbb yow mal kenn ku nekk booy tukki laaj nga laaj nga laaj nga ak yëbbal nit ku nekk booy tukki laaj nga yóbbul mooy sëric sëric bu gën nag bu ñuy yóbbu keroog yowmal xiyaam ci kanamu yàlla mooy taqwalaa mooy ragal yàlla wa tazawadu fa inna xayra zadi taqwa yàlla nee na yóbbulu leen li gën ci li ngeen yóbbulu naa leen ko wax mooy ragal yàlla ragal yàlla julli gi lu muy bëri bëri or geeg nat asakay geeg aj yooyu yëpp dafa am lu ko lu ko lu ko lu ko mooy man mooy lan mooy ragal yàlla wax nañ ko ci waxtaan bi passé mooy tabaski bi ñëwul rek pour ñu tër xar yi di ko rey loolu yëpp taxut yàlla sant ñu ko mais dafa am lu mu bëgg ñu jëlee ko ca jaamu yàlla bu nekk nag am na lu yàlla bëgg nga jëlee ko ca mooy ragal yàlla ragal yàlla boobee moo lay indil résultat bu baax moo lay indil lépp loo war a def rek corriger ci sa bopp ni lii jaat na lii jaaduwut lii rafet na lii rafetut mu ngoog lii borom bi gërëm na ko lii borom bi gërëmu ko ci loolu ngay tënk sa bopp waaw doomu aadama gi li rafet mu xam ko lu ñaaw mu xam li dagan mu xam ko lu xaraam mu xam ko li jaadu mu xam ko lu jaaduwul mu xam noonu nga war a tënk ci sa dund gi kon su ko defee fa tabarakallahu doonul bis boo xam ne taaru lañ ci bëgg ak gëttu lu neex waaye bis la boo xam ne da cee war a gën a jégelu sa borom da cee war a gën a fàttaliku sa borom da cee gën a war a préparer sa diggante ak sa borom muy lan li nga cay préparer lenn la rek mooy ragal yàlla ba tey mu ne ayit bi doon na bis boo xam ne ba tey duwul duwul duwul war waruwaay wu rafet waaye ayit bi dëgg dëgg dëgg mooy ki bàyyi mooy yàlla mooy ki bàyyi yu ñaaw yi mooy ku bàyyi yu salte yi kon su ko defee lii daal ñun ñëpp mbokk yi nañ ci bokk tënkaat sunu bopp ayit bi doon na bis boo xamante ne it kër yu bari danañ ci yëngu mooy suñu yaay yi lañ ko sañ wax suñu tante yi suñu bàjjan yi suñu yumpaañ yi suñu mag yu jigéen ñi suñu rakk yu jigéen ñi sañ nañ leen koo wax sañ nañ leen koo ñaan bis la boo xam ne ngel la góor góorlu leen ba bu leen ci teg seen boroom kër yi lu ñu mënut am na ci sëy yu ciy tase am na ci sëy yu ciy naqadee te du mos a neex te dara waraloo ko lu dul seetaan nga ma war nga maa defal defaloo ma sama moroom yi nii sagaloo ma siggiloo ma waa ndax yow yàlla daf laa digal yow borom kër gi bis bi jot nga sagal si sa jabar wala sigil ci sa jabar déedéet li la ci yàlla sant c'est simple sunna la sa wërsëg bu ci xajee ñoom ñu xaj ci defaral leen ci bañ kontaan bu ci xajul nag yow yàlla tegu la loo mënul mais da nga gis jigéen ñi ndeysaan ëpp doole gi du mën a ñëpp parce que ñiy baax ñi ngi baax ba léegi ñi doy waar ñu ngi doy waar ba léegi moo tax bul ne ñëpp a baax généraliser ko bul ne ñëpp a bon ko boo ko defee da ngay tooñ ñii baax ñu ngi continuer mbaax ñu doywaar waar ñu ngi continuer doy waar mais am na ci jigéen ñi majeure partie ñu ëpp doole dañoo doy waar fitna la ñuy doon ci seeni borom kër teg leen lu leen yàlla tegut loolu nag yow ku góor ki bul ñàkk fulla bul ñàkk fayda gis nga lu la sa borom tegut bu la ko mbindeef teg lu la sa borom tegul mu yàlla bu la ko mbindeef teg des fois nga kurti kurti dem ba am ab xaar indi nga gis jigéen ju doy waar di la ko xeebal mbote mii nga fi indi sa morom yi xar mu ne lañ may indil xar mu baax lañuy indil seen jabar yi yow nga may indil nangam ak nagam yooyu taxawul xar ma su fekkente ne mucc na ayib ci yi ñu wax ni nun la war a mel indi ko sa njaboot ndax foofu la sa poos toll kenn ku nekk fu poosam toll te mbir mi doonul puukariwu mais jaamu yàlla la su fekkente ne yaa ngi gis ne diw lii la am kii man awma lii yaa ngi commencé génne yàlla ci mbir mi yaa ngi commencé génne yàlla ci mbir mi te lu yàlla génne loxoom nag bu yaboo nga jaaka nga def sa xel ne yow amee too ci loolu yàlla kon su ko defee ñuñ ko sañ ñaan nañu bàyyi xel ne bis bi duul bis boo xam ne bisu fitna la encore une fois waaye bis la boo xamante ne bisu jaamu yàlla la buñ ci teg seen borom kër yi lu ñu mënul yow borom kër gi ñàkk fulla ak ñàkk fayda bu mu la jàpp waxoon nañ ko ba nga ànd ak sax sa jabar dem daaral ne ko tànnal ci xar yi bu la neex tànnal ci xar yi bu la neex yàlla tànnuloo wut tànnuloo wut la ngir yow nga tànnal soxna si déedéet yow la tànnaloo nga tànn ngir yow jaamu yàlla su fekkente ne nag sa wërsëg yaatu na lool ba nga mën a jëndal sa bopp mën koo jëndal loolu yoonu yoonu kenn nekku ci mais nag yow moom yow yaay priorité bi yow borom kër gi yaay priorité bi yaa leen war a boot yëpp baale leen ba tey kum amul wàcc na la l'islam ñëwul pour sonal kenn yenent bi sallallahu alayhi wa Euh, euh, loj na ñaari gàtt benn bi mu tëbaskee ko moom ak waa këram benn bi mu ne lii de maa ngi koy yéene ci sama xeet yi ñu seen loxo jot seen ginnaaw kon yow mi nga xam ne da ngaa bokk ci famille kure ngeen baal ma yow l'islam teggil na la tabaski kon su ko defee sunna la daal boo xam ne ñëwul pour sonal kenn am na ci ñoo xam ne nag seen farata dana ca yàqoo ndax topp ci benn sunna boo xam ne dala yàqal sa farata dara jaru ko niñ ko waxee sànq am na ci jumaa joo xam ne mi ngi nekk ak yow ci même koñ jumaa ji at ba at nga fay dëgg sa tànk te julli korite lay doon wala julli tabaski te waxtu julli juróom yi nekk fi nga war koo joxee ci jumaa ja demoo mais julli tabaski wala julli korite tax ngay reye sa bopp ngir dem ci sàppi bu njëkk wala dugg ci biir jumaa ji loolu jaaduwut loolu rafetut kon su ko defee farata farata la sunna sunna la bu la sa sunna yàqal mukk ko sa farata parce que lee def la ñàkk mën bàyyi jaamu yàlla gii muy waxtu juróom juróomi moom mën def ñàkk mën def la heure bu la wàccee rek da ngaa dee wala sa xel mi nekkut ak yow aj màkka sax mën ngaa wéré di wala boog nga am ngantal poos yàlla ne la teggil naa la ko asaka c'est la même chose ak yeneen jaamu yàlla mais lii di julli moom bu la wàccee rek da ngaa dee da taxaw def ko nga ne mënumaa taxaw ma ne la taxawal wiiru mënuma ko ma ne la toogal te bul wéeru nga ne ko mënuma toog te du ma wéer mu ne la toogal wéeru yooyu yëpp benn bu ci nekk ba ci ni ngay tëddee kon moom du la wàcc ba baa ngay sangoo suuf mais bi dee lii mënoo bàyyi kon sa simple kon ñu ngi ñaan yàlla képp koo xam ne borom kër nga rek yàlla na la yàlla jàppandal julli gii ñu jublu si lépp loo ca aju yàlla jàppandalal la ko ah, yàlla jéggal ñi nga xam ne it jiitu nañu ñi fi desandi it yàlla defal leen suturaak tawfiq euh, tënk leen ci yoonu siraatal mustaqim yàlla na bu mu doon suñ bu jëb julli lépp lu luñ ci def mu néew mu bëri rek yàlla nañu ko yàlla nangul ci matam ga ak mbaaxam nga nu mu toll bañ ñu ko nangulee ci suñu matadi gi ak suñu manqué gi ak mën a tooñ gi bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di ci balu ñëpp xaq di baal ñëpp xaq di ñaan yàlla bool ñu jéggal di wax rek ne in uridu ila al islaha ma sataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu